yeneen yu ko gën boo gën di farata ci moom waaye gis ay nit rekk di def yow it nga jóg ni yaa ngi def doxul waaw doxul nag te innama alxiilatu fi tarki alxiyal waaw dañu wax ni pexe may jëriñ mooy ba nga bàyyeeg yàlla pexem ba noppi waaw pexe may jëriñ mooy ba nga bàyyeeg yàlla pexeem ba noppi waaye bu la pexeem yàlla doyatul kay pexe moo wutati musiba la waaw innama alxiilatu fii tarki alxiyal dafa fekk nag xat-xat mënula ñàkk ila man takkilu ni waaw ila man takkilu ni yonent bee ko yàlla ni ko lu tax nga wàcc ma koo may bàyyeel la waaw te wëccu ko nag yàlla mel noonu léeg mu fàtt la ci xat-xat waaw waaw léeg mu fàtt la ci xat-xat loolu tax yonent yàlla Moussa ni ko soxare nga ma <laughs> xolam ba tàng jër walaay ndeysaan defar këram ba mu baax waare ba ñëpp topp ko yàlla ni ko kaay ma jox la al alwaax yi nga xam ni ci la àtte yi nekk mu dëdd rekk fa ñu koy joxe alwaax ya ak fan ya fa am mu dellu si fekk yàlla tas këram bu jooy ca jooy yu metti ni yàlla soxare nga ma waaye fekk na soxarewu ko waaw moo moom alwaax yi moo moom kër ga moo moom alwaax yi moo moom kër ga lu mu def rekk am na lu tax waaw moo def seen Hajj Malik mag ñi dañu ko bëggoon ba eh, lu xew këram rek ñëpp feebar ñépp waaw ma tax mu daan wax mag ñi lu ngeen fii wut si bu fekkee dootul këru yàlla kay yàlla sañ na kër gu ne mu dugg fa def fa coobareem waaye fii moom sañu ko lu ngeen fii def parce que dootul këram te comme dootul këram ndax ni ngeen waxee noonu la mooy bëgg leen yàlla moom fu ne sañ na faa def dara waaye fii sañu lu fi xew mag ñëpp feebar ñépp tëdd waaw ndax rek sopp ko waaw waaye Moussa it ni ko soxare nga ma ni ndax bëgg nga ma won la li sa xeet nara daj fii ba ba addunay tukki mu ne ko waaw mu indi film ba waaw tegal ko muy xool li nara xeet ci li nara xew ci xeetam ba ba addunay tukki waaw mu yëkkat yëkkat yu metti ni ko lii dana dali sama xeet mu ni ko waaw ah. eh moo ko moom lu ko neex def waaw moo tax yonent bi ni ko eh, koo may bàyyeel nag bi nga ma wàccee koo may bàyyeel mu ni ko ma waddaaka rabbuka wa ma qala waaw waaw ma waddaaka rabbuka wa ma qala wallaay sa borom bàyyiwu la bañu la waaw booba jaaxle na moo tax wàll la bu mat a bàyyi xel uh-huh. ndax Cheikh sama turandoo am na jamono mag ñi duñu julli mukk te jàngal lu ñu ko dog pour yàlla alak ko te dañ leen koy jox ñu jàng ko ba mokkal ko bu dog bi àggee ñu ni yal na ko yàlla alal yal na ko yàlla génne dëkk bi sonnal nañu te gan la fi te xale la lëjal nañu waaw ñépp ñaan ko ca kaw waaye mujj na kenn mënatu ko ñaan mujj na kenn mënatu ko ñaan waaw boo gisee am ñu daan jaaxle lu tax mu tëb tëb gedd ajjuma julli ji ko ci juma dem na ba bàyyi ko ndax demoon na ba xam ni ku ko jiite noonam nga Cheikh àggoon na ca àggoon na ci mënatul julli ci benn jumaa ndax ilimaan ju ñu fal rek noonu nga ko ah? te nag amul sañ-sañu julli ci gannaawu ku ko noonu kooku ci ci ci xasiyaam yi la bokk waaw ah? moo taxoon mu ni mag ñi bu leen ma ci topp waaw ah? bu leen ma ci topp yéen dem leen julli ci gannaaw ilimaan yi mag ñi def ko ñaari ajjuma lank ñoom itam waaw ñëpp di julli ajjuma ci ëttam lu ci nit mën waaw ndax boobu ku ko jiite rekk noonam nga te xam na cërëm waaw te am ci ñu ko daan tiitaroo waaw bañ nga ñu ko bañ di ko tiitaroo dog ya ñu daan joxe ñuy ñaan di ñaan yàlla pour mu rëbb ko eh, eh, di ko tiitaroo waaw muy wax ayuha almuaridu anna inna iradaka minna waaw ci sañ-sañam boobu rek cheikh waaw ci fukki atam juróom ñett la mat lu góor di mat waaw looloo tax waaw bu ñu firee alxuraan mu ni du noonu ci juum waaw mag ñëpp nag ni comme gan la fi taamu ko lu dul fukki ak juróom-ñett lu nu wax mu weddi ko nañu ko jàngal dog waaw yàlla ala ko bu mu am ñaar fukki mukk ci kaw suuf waaw mu dund ba am juróom-ñett fukki dund dund dund ba Maodo di taalibeem dund dund ba Serigne Babacar Sy di taalibeem waaw dund dund ba ña gànnaar kenn mënu leen tudd di taalibeem ma ñu tàggoo Serigne kër si pour wutal daayira statut mu ni ëpp na dem ndax lépp lu laal Cheikh kenn du ko wutal statut waaw ëpp na ko ëpp na ko lislaam kenn du ko wutal statut moo tax Cheikh kenn du wutal dara am statut waaw ca mobilisation général ba ñii ndaw fekke wuñu ko waaye ba ñépp solo di ay militaire jëm ca guerre ba seen yitte yépp mooy wasifa ci biir caserne bi waaw tubaab yépp seeti Serigne Babacar di ko loo ca xam mu ne bu ngeen ko teree bu ngeen ko teree àdduna takk ci seen kaw waaw waaw caserne boo dem nasiril xaq bil xaq ji waaw waaw ndax loolu moo tax tabarkalla ah moo tax Si daan na wax ni nee na am na koo xam ni bu gàgganti ko ci mbedd ñu jam ko am na loo xam ne soo ko amee xam ko rek téye ko rekk jàpp ko rekk bóof ca rek laaj ko rekk gàggantiku ci mbedd am na koo xam ne gàcce la ci moom gàcce la ci moom loo fay wut loo fay wut waaw loo fay wut waaw ndax cheikh daf ko ni eh, daf ko wax ni ko almuniya mu ni ko almuniya fi ay shay mu ni ko fi tariqa mu ni ko almawtu fiha mu ni ko almawtu fiha mu ni ko fa muniyati saaxi saaqat fi tariqati fa muniyati saaxi saaqat fi tariqatina fa hiya almaniyatu fiha ذاك مأموني إن القصيدة هذه min muridi abil faydil ilaahi abi bakrin ko almunia mu ne almunia fi ay shay mu ne fi ko laaj Serigne Babacar si ni ko luy sa yéene léegi mu ne ko yéene ci lan mu ne ko ci tariqa bi mu ne ko dee tekki rek jot waaw ma ngay séentu mu ni ko eh, eh, eh, arraché course yi la bëgg ñu jox ma ko te bu ko laajoon jox ko waaw mu ni ko almunia daan def jékki-jékki rek feeñu ko rek wax ko benn baat ni ko foo mu ni ko almunia mu ni ko almunia fi ay si mu ni ko fi tariqa mu ni ko al mawtu fiha jeex na ah. فمنيتي صاحفات في طريقتنا فهي المنية فيها ذاك مأموني ها؟ أه؟ لا إله إلا الله والله barakallahu fiik wallaay moo tax barakallahu wallaay wallaay góor yu baax lañu waaw fa muniyati saaxi faaqat fi tariqatina في طريقته التي صحتكم وهي في طريقتنا فهي المنية فيها ذاك مأموني واو أها بكار قلت إن القصيدة هذه من مريد أبي الفيض الإلهي أبي بكر أخي الهوني Euh, seen mbir kenn xamu ko wallaay wallaay wallaay guddi ajjuma wala guddi altine dañoo woy xasida cheikh ba dangay yëg ni mi ngi toog koy yëg waaw diggante xatin xadim xataat lil ardi an kal masamio tabarkalla fa mu ca jaaye boppam alam taalam anni ala sabxi baia teew mi teew wallaay ndeysaan mag mooy jële si ca ka mu nekkal ndeysaan pour mu ñibbi bokk nga ñëw mu ni la ma déy la dama jaay sama jëmm teew mi teew loo ca mën nga foofu bàyyi rek waaw nee doon jël si dama jaay cheikh sama jëmm teew mi teew فأنا المتيم إن عرفت كفاني والله والله بين أها هل من سبيل إلى سلمى بيبريني طلق ارتحالي إليها كان يبريني معدد القلب من لدع الصبابة بل نار البعاد على الأحشاء تكويني كأن شبحية ملقوط المفاوز بل قد صار منعدما من بعد تكويني kenn waxul lu ni toll tabaraka tabaraka waaw waaw waaw walaay ndeysaan xam naa takwiini takwiini waaw maanaam eh, maanaam yabriin barab la yabriini mooy mi ngi maa yett bokkuñu bële tur la bi fi'l la fi'l mudaari waaw takwini takwini takwin bële masdar la min kawwana takwinan takwini bi fi'lu mudaari la mi ngi maa ñaas feer bële tur la turu barab la yabri mbiib min bara yabri waaw takwin bële min kawana bi min kawaat mikwaat ji ñuy firee fer à repasser ci lañ ko jële mikwaat waaw moom moo tax bokkuñu waaw waaw <laughs> waaw. Cheikh Ahmed Tidiane si kii kooku laa biir suñu jëfee Tuubaa fa tabaarakallaahu la ko seexal ci fukki minute rek nu àggale waaye ngeen xam ni rek daje jàmm la daje yiw la daje déglu la bu ñu noppee itam bu kenn sonal kenn bu ñu noppee it ñu ñaan bala ñu fee jóge ah te itam ñi amee oto yi ñu bàyyi xel ci nii tabarkal la tabarkal la barab bu mag ñi la ñu dox ndànk rek bañ a yàkkamti dinañu àgg jàmm ci kattanu yàlla eh, mu wax ni hada hada min allahi hada min allahi tajri xawlahu al usru waaw hada min allahi تجري حوله العصر leneen dafa am loo xam ni ci yàlla rekk lay mën a jóge jamono bu ko neex def ko ca mooy koo foogoon ni dootul amaat mu amal ko lu ci nit mën waaw moo nu dal ci Cheikh El Hadj ndax foogoon nañu ni nit ku mel ni moom dootul am yàlla amal ko waaw lépp nag ci daraja Seydi Cheikh Ahmad Tijani waaw hada min allahi tajri xawlahu lusuru yaa ashbaha annaasi bilfaruqi yaa umaru wallahi yaa ashbaha annaasi بالفاروق يا عمر أوحى إليك بما في الطي من سور حتى تمثلت في أعمالك الصور أه. رسالة من خيار ما لها شبه وسيرة من رجال دونها السير تسعى بها خطوات الجد في ثقة li kulli mintaqatin min sa'yiha athar ayyabtahu bi karamatin mukhalladatin wa fi lkaramati ma tujla bihi lfikaru أنقذت أمتنا السوداء حين شكت من قبضة الشك فارتاحت بك الأسر وقدتها برضا تمشي لغايتها وفقا لفطرتها فانقادت الفطر لما سمعنا رجالا يذكرون به وافضل الشيء ما طابت به الذكر قلنا لهم لا اقل الله زادكم زودتمونا بما في ضمنه عبر تلك المعارك تدعو للدفاع فلا تدعو إلى الظلم إن الظلم يحتقر يبنون كل مساعيهم بحكمتهم على المكارم لو عزوا لو انتصروا طافوا البلاد على خيل شمائلها تحكي شمائلهم من بينها غرب أه شي حق شيخ الحاج عمر nee na du moom rek la ñu tuddee Umar ibnul Xattaab waaye moo ko gën niru ci ñu ñu ko tuddee ñëpp uh-huh. nee na alxuraan it ñëpp dañ ko jàng waaye moom dañ ko ko wax yu waan waaw yépp dañ ko jàng waaye moom dañ ko ko wax yoon ne bu jëfee ci nga koy xam waaw ay jëfu ki jàng ak jëfu ki ñu wax yu waat du benn waaw léeg it ñu jox ko yonent bu nga xam ni bu jógee ci ay sangit ba mu tàbbee loxoom am na beneen melo bu bu ca nekkul woon bu ca dolleeku waaw yeneen te it am na jikko yu mu jële ci mag ñi te mag ñi mënatuñ ko dab kon nag mel na ni am na lu ca yokk boobu itam léegi mu dëgërale ko mu dëgëre la ko karaamaam yi mu daan feeñal waaye tiitar taxul daf dëgërale karaamaat ya ndax dama euh, amoon sunu benn mbokk Alsaan Jóob benn dafa xër lool ci Sëriñ Babacar Si mooy mago alaj yu sujjóot mii toog di président fédération daayira tijaan yu Cap Vert moo tax pas-pas du tuuti ruux du tuuti mu am benn doomam bu jigéen boo amagul sax juróomi ak mu miinal ko Serigne Babacar Sy ba xale bi ku ziyaare si mu ziyaare si ku ziyaare si mu ziyaare si waaw taamul juróomi at xam naa ni dimanche kenn sañu la ñëw te indi wuloo ko ndax ku ko def Serigne Babacar si tefes keele waaw ba Serigne Babacar si génn àdduna yépp ni nuñ koy waxe xale bi ñuy nax naxal nax naxal nax naxal nax naxal ba mu ñëw tiwawal nax naxal mu gis nit ñi waaye li nit ñi bari yépp mi ngi laaj maamam anam ba pexe amatul nag ñu wax ko ko mu ni patt pattaanam ñi sëriñ Babacar am ñëpp moo leen ko jëkk a topp wallahi ko la dellu Dakar rek ruuxam mënu ko yenu mu faatu waaw papaam ruuxam mënu ko yenu mu faatu yaayam ruuxam mënu ko yenu mu faatu Mouhamad Yaxya ni doon penku ñii fu ñu leen suur ñu di leen ziyaare ba faw waaw ni que lii ci la karaba yem waaw ñoo doon ñun ca penk fu ñu leen suul ñu ziyaare leen wallahi ba tax na ñoom seen karamaat yi kenn kenn xamul naka la toll te Cheikh Hadj bokk na ci karamam fas yéen itam yi daan war di defi jihaad jikko fas ya rafet na comme jikko ña leen war te loolu ca la jib ko jikko fas ya rafet na waaw ndax fas bu dul songu mag du songu jigéen du songu xale dégg na ndigal daa yonent bi nee na woon jihaad ak xare li ma koy xàmmee mooy xare loo jot yàq yonent bi ko wax ne nee na jihaat ak xare li ma koy xàmmee mooy xare loo jot yàq jihaat doo gaañ mag doo gaañ xaleel doo gaañ jigéen doo lakk kër doo lakk tool te bala ngaa dóor ñu dóor la waaw loolooy jihaat waaw boo gaañee mag mu yàqu boo gaañee jigéen mu yàqu boo gaañee xaleel mu yàqu boo lakkee tool mu yàqu boo lakkee kër mu yàqu boo jëkkee tooñ mu yàqu ba tax na sunu mbokk Ousmane Seck téléphoné na ne mi ngi ziar mi ngi nuyoo nee na itam bëggoon na ñëw waaye ku ne xam na lañu ko dégg te itam doy na nu ko fii ci taxawaay wallaay wóllëre la doom la taalibe la rakk la tabarkalla tabarkalla waaw ah mu mel ni kon nag mag mu baax dal mag mu baax la yàlla jox na nu mag ñu baax ñi yàlla nu yàlla bàyyeek ñoom yàlla nu yàlla bàyyeek seen leer yàlla nu yàlla bàyyeek seen barke yàlla nu yàlla bàyyeek seen ndigal yàlla yàlla seen ñaan ci sunu biir yàlla yàlla képp ku fi indi lépp lu di sa bëgg-bëgg mu fajal la ko te muy sa jàmm di sa jàmm njaboot fa tabarakallah bu kenn jóg bu kenn xëccoo ba ñu àggal waaw waaw waaw waaw te lu la ngi ñëw waaw lépp kon nag xam naa sunu mbokkum daara ci jóor mbokk daara yépp ngi ko ñaanal ndax sonn na ci daje bi tabarkalla wallaay sunu mbokk itam Ablaye Njaay Séni wallaay bëgg nu ko woon sax mu wax ndax du ko di bëgg waaye rek moo xam ni it nañu ko lu ci am solo la tabarkal mu mel na kon nag am na mag mu baax dal moom am ko jar na lu nekk ndax dañuy tëxët ci wàllu yàlla ba lu leen neex def loo tëxët ci wàllu adduna ba jikko bu baax ñu am ko tabarkalla yal na yàlla saxal seen leer xam naa la sama bàyyi ba waxoon góor gi ma sàmba bu mag dafay mag mu amee canton te baax lool canton ba yëpp bëgg ko te bariwul génn lu am solo la kilifa gu bariwul génn te ñëpp bëgg ko ndax ku ne fa nga toog xam nga ni yéene na la jàmm waaye am bés nag rekk ci tëxët gi mu ni chauffeur am eh, dooma woon li ma yilifa ni ko doom bëgg nga wër ak man ma xam li ma yilif mu wax ko xakim bi ànd ak moom warkal la góor bu am xel la daan àndal nga xam ne xakim piir la woon mu ni ko man day góor gi dafa bëgg ma woon ko li mu yilif te it naaj bi dafa tàng te dafa di mag te dama bañ mu sonn te li mu yilifit dafa yaatu te yoon yëpp bokkul baax mu ni ko na may def mu ne ko xam nga nooy def boo jógee rek bul wàcc tali bi mu ni ko demal ba mbooro bu pneu oto bi tooyee rek arrêté la la ca des maa ko moom mu jóg rek a topp yoon wi jàddul fenn oto bi dem ba pneu bi tooy ci ndox géej mi chauffeur bi arrêté góor ni ko lu tax nga taxaw xakim bi ni ko tagg ko nag tagg ko ni ko sàll fii nga diklu sunu borom moo moom géej gi yaa moom wala ndeysaan mu ne ko fii nga digloog sunu borom wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay mu ngoog bopp wallaay wax na dëgg wallaay moo ma def wallaay wallaay mu ne ko moom moom géej gi yaa moom njëriñ ji mu ne ko kon nag nan wëlbatiku njàmbur baax na waaw waaye tabaarkalla tabaarkalla eh. wallaay wallaay. waaw ñu yóbbante ñu yóbbante Alaaji Njaase ñu yóbbante ko ci Abdul Karim Sissoko yi fi nekk yëpp ci YouTube moo ko fi indi dégg nañ ci lool yal na ko yàlla jàppale bu mel ni kon nag la wax nañu la xew ndimbal yëpp ñëw na jóge na ci kilifa yi ci ndigalu kilifa bu mag bi ci teewuwaayu suñu jigéen di ministre di membre waaw waaw te tabaarakallaahu yal na yàlla gën yaatal yépp dañuy ñaanal itam sunu mbokk mi toog xaaj Malick Ba ak kilifa yi ko jàppale wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla soo amee sa mbokk mu taxawu la ah am na lu ca yàlla bëgg te mooy foo toll di ko jàppale te di ko ñaanal itam tabarkalla waaw yépp nag moo ko moom waaw kenn moomu ko moo ko moom dimbale kilifa baax na dimbale kilifa baax na tabarkalla te nii mu defe ndimbal la ndimbal la yal na yàlla yàggal ndimbal waaw yal yàlla yàggal ndimbal nu ngi itam delloo kilifa yi bi toog yépp ilimaan muqaddam président daayira ñu ngeen ñaanal ñi bokk ci service yi te teew fi ñu ngi ñaanal sunu mbokki bopp yi fi teew soit sunuy député sunuy maire ak sunuy responsable politique ñu ngi ñaanal ñëpp yal na yàlla defal ñëpp jàmm waaye nag ñi nuy gën ñaanal nag mooy sunu doomi bopp yi di waa Moustarchidine ak waaw ndax kat tabarkalla tabarkalla kenn xamul lu leen yàlla xiire ca kële tëdd di nelaw ca Tiwaawan waaw miin ñu ko waaye miin nañu ko waaye miin nañu ko ndax ñoom ñoo mel noonu ku ñu bëgg ñoddi rek ñoddi la waaw tabarkalla ba tax na kon nag yal na yar leen ci yiw yar leen ci ak baax yar leen ci sutura te itam aar leen wattu leen kenn bañ leen a mënal dara te itam lépp lu di seen bëgg-bëggi xol yàlla defal leen ko te mu sedd guyu te jig leen jig ñi ngeen am ñëpp fa tabarakallahu kilifa yi di leen di ñaanal yàlla ndax jàppale bi ak taxawaay bi waaw lii lii liggéeyu nitu yàlla piir la baax yàlla xam na ko